jërëjëf gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar ñëpp di sant ci teewlu gi ngeen teew teewlu seen programme almouridiya tey nag programme bi dafa mel ne kuréel 1 bu Hizbut ñoom ñoo ko aye euh, kuréel 1 Hizbut Tarqiyyah ko dégg mooy kuréel bi nga xam ne sëñ Ablaye Diop moo koy jiite nga xam ni ossature bi Dakar la nekk waaye nag li ëpp ci ñoom euh, dëgg la Dakar la nekk mais am na yeneen ñoo xam ni euh, dañoo bokk ci yeneen daara te nekk ci njàng mi loolu nag ñoom ñoo ayawaat tey jotoon nañu ñëw kon dañuy ñëwaat tey ñoom ñoo war a jàng kuréel gi nga xam ne tamit moo war a gàttandu sëñ bi gunge ko ba mu àgg ci barabam mooy daa kuréel Hizbut Tarqiyyah bu Bambey kon loolu mooy programme bi xam naa ni bu ma joxee kàddu gi sëñ Abdou Lahad Ndiaye mi ma dalal dana leen mën a faramfàcce li nga xam ne mooy programme bi fi war a ñëw kon ni ma leen ko jottalee léegi rek euh, kon tey ñu ngi dalal sëñ ablaat Lahad muy kenn koo xam ne daf bokk ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu mag bu mag bi nga xam ne sëñ Abdoulaye jóob moo koy jiite bu ñu waxee kuréel 1 dëgg la ñi ci ëpp ndakaar lañ féete waaye am na ci ñoo xam ni euh, tuubaa lañ nekk am na ci ñoo xam ni Tëngéej am na ñu nekk ci yeneen daara ñoom ñëpp ñu fekk ko ndey mel ne bu ñu naan kuréel national mooy kuréel national bi mooy kuréel bu mag bi ñoom nag comme ñoo tey jii ci juróom-benn fan ci weeru Ramadan ñoom ñoo ñëw yor njàng mi kon ma jox sëñ Abdoulaye Ndiaye moo faram-fàccee leen li nga xam ne mooy programme bi kon sëñ Abdoulaye euh, ñëpp ñu ngi lay teewlu nga jox ñu programme bi nga xam ne tey moom ngeen ñu indil gannaaw bu ma fàttalee ne waa bu Tarqiyyah bu Bambey ñoom ñooy ngeen dégg ñuy jàng noonu di gàttandu sëñ bi bu jàng mi noppee ñoom ñooy gungewaat sëñ ba mu àgg barabam kon ñu teewlu sëñ Abdoulaye mu jox ñu li nga xam ne mooy programme bi. salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Mansour ñu ngi ziare bu baax a baax di leen ndokkale ci weer wi ñu nekk di ñaan yàlla sunu borom nu yàgg koo teewee kon day mel ni liggéey bi ni ñu ko daan wéyale fan yi yëpp ci kuréel yi day mel ni tey kuréel Hizbut Tarqiyyah moom moo ñëwaat bu dee ci wàllu programme bi yaa xayra day fin la ñuy ubbee waxtu sëñ Massamba buñ paree teg ci raayee sëñ Alaaji Siise maraamiya indallaay mahabin nabi malatu yadulillaahi sëñ boole mbay ak rabi ahmadou sëñ sàmba ñas ak alhamdulilahi lazi yu jaasi boole mbay bu ñu paree teg ci farij moom la ñuy tëje mhm. yaakaar naa loolu mooy programme bi tey sëñ Abdoulaye jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ci leeral gi nga xam ne leeral nga ñu programme bi ñuy fàttali tamit ne njàng mi ni mu daan amee rek lay amee 17h30 lay tàmbali def naa waxtu ngeen di jàng sëñ Ablaye bu ko defee 18h30 lay àgg kuréel bu Bambey tamit ñoom ñooy gàttandu sëñ bi ñoo koy gunge kon sëñ Ablaye ñu ngi lay sant bu baax mën ngaa dellu ci njàng mi ndax kuréel gi mu ngi lay soxla kon loolu mooy li nga xam ne mooy programme bi ñu leen andil tey kon ni ngeen ko gisee ni mu daan demee rek noonu la demee waat tey saal bi fees na bu yàgg sëriñ bi dese na ab diir mu war a yegg si waaye fi ñuy waxee nit fu nit mën a toog sax daanaka amatu fi. lu bokk ak saal yi nga xam ne tamit ci biti la ñu ngi ko climatiser nit ñi dafa nekk di durus nekk di xaar sëriñ bi yegg si kon dafa mel ne balaa yàgg sëriñ bi dana yegg si xanaa ñu def ab tënk rek euh, moom ngir ñi nga xam ne ñooy suivre suñuy programme ci français euh, fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah merci d'être encore avec nous en ce sixième jour du mois béni de Ramadan euh, ce mois qui consacre les gens du Ramadan qui est un pilier de l'islam et qui est un moment important dans l'islam, qui est une série de jours dans laquelle le musulman doit faire abstinence, et abstinence dans tout ce qui peut euh, rompre ou corrompre son jeûne. C'est également une occasion pour surcharger ces moments, n'est-ce pas, d'adoration, de, de ferveur. Et euh, cerise sur le gâteau, le vénéré Khalif a, nous a offert un programme et qui vient de très loin, un programme qui est incrusté dans le legs laissé par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, puisqu'on sait que lors de son séjour, les 15 années qu'il avait passées à Djurbel, il avait l'habitude de faire vivifier ce, ce mois de Ramadan par des actes d'adoration intenses, mais également par la psalmodie de Khassaïd, par la lecture du Saint-Coran, mais le tout ponctué par la distribution de repas Euh, du, du moment du rupture jusqu'au moment de l'abstinence. Je crois que ce sont des choses qui ont été bien ressassées par les doyens d'âge dans les écrits. On peut songer à Seigneur Mamadou Lamine Diop Dagana qui l'a bien relaté dans ses écrits. Et c'est également le calife dont le souci permanent est de faire en sorte que les musulmans puissent remplir leur besace de bienfaits, puisque le ramadan est une occasion de promotion où notre Seigneur décuple à souhait tous les bienfaits qu'il accorde aux lui qui en a déjà assez fait puisqu'il a dit que pour chaque bonne action, il l'élève au coefficient mais pour le, pour le moment du ramadan, mais les choses peuvent décupler, être décuplées jusqu'à 70 000 fois. C'est pourquoi donc, pour ne pas rater cette occasion pour remplir notre compte de bienfaits, pour ne pas rater cette pour remplir notre besace de bienfaits, le calife de concocter un programme comme celui pour que les gens puissent être là puisque les gens puissent être concentrés, pour que les gens puissent être dans ce qui peut euh, favoriser, n'est-ce de cet agrément, nest la chose qui fait courir tout musulman. Aujourd'hui en ce sixième jour du mois de Ramadan, euh, nous sommes le 19e du mois d'avril, c'est un et le Ramadan, donc, les jours sont en de s'égrener par un, mais, n'est-ce le cadre reste le même. le protocole reste immuable, les gens sont attachés, n'est-ce pas, à toutes ces vertus qui vont de faire avec le ramadan. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, ils ont à cœur de venir très tôt, n'est-ce pas, euh, s'installer dans la salle. On a pu augmenter d'autres salles, mais il n'empêche que le nombre est bien insuffisant, la place est bien suffisante. On en redemande chaque jour et vous le voyez, tout le monde, n'est-ce pas, est impatient de voir le calife, n'est-ce pas, arriver nous avons l'immense, l'incommensurable bonheur de le voir sur cet écran. Il s'achemine dans la salle avec tout son entourage, n'est-ce pas Et c'est toujours un protocole qui est toujours le même chaque jour, mais les gens en redemandent toujours. Et c'est le moment évidemment de prier encore de chef pour que notre Seigneur lui accorde une longue vie et très bonne santé. Lui qui a à cœur de faire revivre ce legs laissé par son vénéré à elle, qui est son maître spirituel. Cheikh Ahmadou Bamba, qui au plan des écrits est un être inclassable. On sait que dans le répertoire qui nous est proposé, on peut voir beaucoup d'écrits qui sont consacrés au Ramadan, mais on ne saurait classifier le Cheikh parce que au plan de l'écrit, mais il s'est inspiré, il a pu produire dans des thèmes, n'est-ce pas, aussi variés. On peut par rapport à ces mois voir qu'il y a beaucoup d'écrits qui sont consacrés au mois de Safar, des écrits qui sont consacrés au mois de Rabiul Awwal en référence et en euh, référence à celui qui est sa, euh, sa référence, et à celui qui est ce, celui qui le fait courir, ce, le, le vénéré prophète Mohammed P.S.A.L. sur lui, on peut même voir des écrits qui sont consacrés au jour du lundi parce que c'est le lundi que notre, le vénéré prophète nous est, nous est parvenu dans ce monde pour dire donc que le cher est véritablement inclassable. Et par rapport à ce ramadan, il ne tarit pas d'éloges, mais on sait que c'est dans une rigueur, dans une austérité profonde, dans une zone d'infortune religieuse qu'il a passé euh, le mois de ramadan dès le début de l'exil, au point qu'il ne pouvait même pas trouver quelque chose pour faire le, la rupture du jeûne, au point qu'il ne pouvait pas donner le, le, le, monde de la fin du ramadan parce que simplement il ne voyait aucun musulman autour de lui. C'est dire donc que c'était un cadre austère, mais il n'empêche que son cœur, n'est-ce pas, est toujours rempli de cette crainte, son cœur est rempli de cette volonté d'œuvrer pour le vénérer, prophète Mohamed paix salut sur lui. Et c'est son petit-fils aujourd'hui qui est son disciple sincère qui est là pour faire revivre tous ces événements qui est en train de faire revivre tout ceci au bon bonheur de tous les musulmans. Et le calife est dans la salle, donc on peut suspendre et rendre l'antenne et laisser les gens se consacrer. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.